بسم الله الرحمن lii mooy xaaju fukkeel bi ak ñeent ngir bunt bi ñu weesu moo doonoon muqaddimab fukkeelu xaaj bi ak ñeent kon muqaddima boobu moom lañ def fukkeel fukkeelu xaaj bi ak ñett bokki jullit yi salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam gi ñu jàpp ne moo gën a gàtt mooy sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin moom lañ jàpp ne moo gën a gàtt yusuf bnu ismail nee na al imam alchaaraani nee na sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam daana wax naan من قال هذه الصلاة فقد فتح على نفسه سبعين بابا من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق nee na ku wax sallallahu ala muhammadin benn yoon ubbi na juróom ñaar fukki bunti yërmaande ci kawam te sunu boroom da koy tàbbal ci biir xoli nit ñi ñu sopp ko te kenn du ko bañ ku dul am naafiq loolu sallallahu alayhi ko wax ci salaatu googi di sallallahu ala muhammadin te salaatu googu boo ko dee baril sunu boroom dina la defal ndimbal ci kaw say noon dina tax a gis rasulullahi sallallahu taala alayhi wa ci gént dina tax a am wërsëg tamit ndax boo seetloo sax limub xarafi sallallahu ala muhammadin mu ngi toll ci 368 ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett boo wàññiwaalee yaa gi nekk ci salla ak gi nekk ci ala te bàyyi alif ga nga xool baatu urzuq nii bii firi defal ma wërsëg walla wërsëgal ma limub ay xarafam mu ngi toll ci 368 ñetti téeméer ak juróom kon sallallahu ala muhammadin mook urzuq nii ñoo dëppoo ci lim kon boo waxee sallallahu ala muhammadin waxaale nga ca ne yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ma loolu wone na ne sallallahu ala muhammadin day ubbi bunti wërsëg jële nañ ci anas ibnu mu ne sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku wax allahuma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim te fekk nga taxaw def la jéggal say bàkkaar balaa mu ne bu fekkee nga toog def na la jéggal bala ngaa taxaw kon salaatu googu ku ko saxoo dootoo dese bàkkaar ci yërmande yàlla jële nañ ci al aarif al mursi radiyallahu anhu mu ne ku saxal allahumma salli ala sayidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim juróomi téeméeri yoon guddi juróomi téeméeri yoon bëccëg doo dee mukk te dajewoog rasulullahi sallallahu taala alayhi wa nga di ko gis waxul ci nelaw de jëhran la wax nga di ko gis jële nañ ci imaam alyaafici ci téeréem bi tudd bustaanul fuqara mu wax ne jële nañ ci sallallahu taala alayhi wa sallam mu ne ku wax salaatu googu junni yoon bisub ajjuma di nga gis sunu boroom ci gént wala yónnente bi sallallahu taala wa sallam ñu won ko këram ca aljana ca guddi ga mu ne boo ci gisul lenn ci yooyi yi nanga ko defaat ca baneen ajjuma ba ca topp boo ko gisul nga di ko def ba keroog ngay am juróomi ajjuma abu hurayra radiallahu anhu nee na sallallahu alayhi wa wax na ne ku julli ñaari rakka guddik ajjuma rakka bu ci nekk mu jàng ca faatixa benn yoon aayatul kursiyu huwa allahu ahad ba mu jeex fukki yoon ak juróom bu sëlmalee mu jàng salaatu googu ñu waxoon léegi junni yoon dina ma gis ci gént sallallahu alayhi moo wax loolu ku def loolu dinga ko gis ci gént moom sallallahu alayhi wa sallam te nee na doo àggat ca beneen ajjuma ba te gisoo ma mu ne takkuma gis sa aljana leer na nañ te def na la jéggal bàkkaar boo masa def ak boo defagul loolu ku gis sallallahu alayhi wa day waral ñu jéggal la sa bàkkaari tey ak sa bàkkaari ëllëg te sa aljana leer na nàññi kon salaatu googu dina tax ñu jéggal la say bàkkaar dina tax a gis rasulullahi sallallahu taala alayhi ci gént ak jëhran dina tax a gis sa kër ci aljana dina tax a gis suñ boroom subhaanahu wa taala ci ndimbalam said bnu otarid nee na man qaala haadihi salaata wa hiya allahumma salli ala muhammadin fi alawalin wa salli ala muhammadin fi alaxirin wa salli ala muhammadin fi alnabiyin وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثلاثا حين يمسي وحين يصبح هدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام سروره واستجيب دعاؤه وأعطي أمله وأعين على عدوه mu ne kuy def salaatu googu ñu wax léegi muy allahuma salli ala muhammadin fi l awalina wa salli ala muhammadin fi l axirina wa salli ala muhammadin fi lnabiyina wa salli ala muhammadin fi lmursalina wa salli ala muhammadin fi lmalai l ala ila yawmi ddin ñetti yoon suba ñetti yoon ngoon def na ko jéggal ay bàkkaaram def na ko faral ay ñaaw téefam sunu boroom dina saxal mbégte ci xolam bu ñaanee suñ borom nangu ko suñ borom dina ko may ay mébétam te dina ko dimbale ci ay noonam ñëw na ci téere bu ñuy wax achifa bu Qaadi Iyaad ñu ne alxasan albasri nee na man araada an yashraba bilka'si alawfa min xawdi almustafa sallallahu alayhi wa sallam falyaqulha ku bëgg a naan ca dexu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ga nee na nay def salaatu ala nabi sallallahu taala wa sallam gii may waaj a wax allahuma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa awlaadihi wa azwaajihi wa durriyatihi wa ahli baytihi wa ashaarihi wa ansaarihi wa ashyaacihi wa muxibbiihi وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين salaatu googu moom la alxasan albasri wax